ma bi intelligence comme li ñu naan bête lectuelle gu ñu doon is ok ngeen xool seen lack of intelligence ngeen xool ñoom ba tey fu ñu toll that's ok but dañu fàttali seen li ngeen yor ak seen taxawaay seen leadership is not given by paperwork no because ñoom seen bopp kayit gi paperwork bi daf leen reject bañ ko dalee utiliser des siècles they will never gonna see victory so therefore sama njaboot gi li mooy wane ni is a way pour ngeen gis fabulous, faiblesse fu mu toll ku dem bay jàppandu dafa nga jëmbat sa orange sa garab orange ba mu meññ sax ba pare nga ñëw kaka moomul mu teg fa benn miir ne la doo jéggi dagg ko te moom tamit du ko lekk te mu xam ni que ak ah, yow boo paree miir rek la danga koy toj dem jëli sa yëf do you understand so fu ñu toll nii is not about dem comme lu mu leen wax ñoom dañuy provoquer avec ragal dañuy provoquer ak ragal te yéen xooloo leen kayit yéen da ngeen stoppé lépp meaning the paperwork doesn't exist anymore ñoom ñoo ko njëkk jeopardize we don't care about that ñoom kese ñoo ci war get busy on it of course loolu rek la am what else loolu kayit la encre te loolu moo indi problem yépp cha adinaki. is getting his way out nit ñi dañuy dem ba discover it was a scam and propaganda so léegi comme ñoom dem nañu ba ñu xam ne même ci wooyee PayPal bi ñuy utiliser the PayPal have rejected kooku ñoom ñoo ci focus mais yéen sama njaboot bi comme li ma yàgg wax da ngeen a victorieuse ba pare fu ñu toll nii ñoom ñoo pare pour provoquer and the provocation bu ñuy préparé dañu make di bëgg a provoquer with fear wóoluñu seen bopp right now where we are with that ex government and the ex president ex dictator of Senegal he's he's in his way out to go as he's preparing to sabotage Senegal peace he have no support so therefore, my kid, I just want you to be on standby. But that doesn't mean they have their way. No. Their way is shut down. Everything is blocked. Only way they have is to find a way to leave the country in peace, that dictator Macky Sall. The trying he's trying right now He's with fear. He has no power, no control over anything. So to tell you my kid, my population of Senegal, I, the Crown of Peace Ambassador, I say all of you, my population of Senegal, my youth, to be on standby to prepare. Because when a loser is preparing to sabotage, don't be naive to sit so comfortable because you work for it. You the winner. You the victorious. You have mercy for your country. You fight in the right way. Until you get to a point where now it's all about to end the fight with peace. If Macky Sall, as a dictator and terrorist he is, he doesn't want to leave now the few days left for him to enjoy the peace of mind he has and he decided to sabotage Senegal, all of you have right to defend yourself. Stand up and fight. Because when you write, you don't let anyone jeopardize your right. He's finished. He has done two terms. And you have take so much pain, my kid, my people. Just because the love you have for your country and the love you have for your population. So if now Marcus decide to take another bloodshed, to act in his evilness, you have right to defend yourself. You all have rights to protect yourself, to stand up and fight. Wrong is wrong, right is right. So I will call all of you again. Self-defense is about loving your own self and loving your country. You don't provoke anything. You have followed the rule follow the law. The government have jeopardized everything and decide to sabotage. And we will never going to sit back. We were born standing, victorious, and ready. Nothing will surprise us. This has been planted and happening since day one. They call us Kujamat people. We pave the way for every world to be in peace. That doesn't mean we will sit back and let the fool to play the game, the rhythm, to destroy our population will never going to happen. My children of the nature, the Senegalese and the Senegalese people, it's time to get ready. You're on your right. You own what you work for peacefully. Therefore, there's no winning and other side. What they have is they lost everything and they already enjoy their two tongues. Now it's up to them to decide. Either they have to walk in the big door or they have to take the, the whole of a rabbit. Two option and is an obligation. The game is over long time. To tell you what, when come to President Usman Ajuma Osongo, the time Macky Sall was trying to do his daily game on him, and he never performed. President Usman Ajuma Sonko, nothing will happen to him. That I assure you. Nothing. Nothing they can do. He shouldn't be your worried, my kid. What should be your worry is prepare to defend yourself. Self-defense is a law. on stand by stand character. You be applying peace all over the world. You take so much pain. The youth are dying, suffering, women and children, on the hand of a dictator, Macky Sall, terrorist group, and his wife. Enough is enough. I urge all of you, prepare yourself. Stand by. As he has few days left, he must choose. As they tell him and they ask him, Senegal must remain in peace. This election is already chosen. The country have spoken. My children have spoken. The nature and the spirit of Senegal have spoken and chose the one and only one, the chosen one, chosen by the universe at a meet, is Usman Ajumau Sonko. Nothing can change that. Now, if Macky Sall decide to challenge the rule of the universe, the chosen one of the universe, you have rights to defend yourself. Because this bullshit he's trying to apply in Senegal is going to be consequences. Is the innocent people going to be losing their life for no reason. So you have right to prepare. And I will urge all the travel to be on standby and to postpone that right now Senegal is in a red. We're finishing up a fight that demand by the universe. So we want peace. If Matisal don't want peace, we will answer to him. We was born ready, as I say, victorious, merciful. But when come to, to protect ourselves, we have a right. Saman jabot. gi wak dama wax en anglais pour ñi comprendre di leen xamal encore ngeen préparé comme ni mu ko waxee woon xeex bi du optu Macky Sall ak groupe mu ndaw perte nañ yàgg na ak Adjuma bañ ka occasion yu ñu amoon pour def seeni salte dañ ko raté ku yàgg pexe ay siècle du léegi lay am lu mu bëgg never dañuy làmbaatu di try di leen naan bu leen worit ci Ousmane Ajuma Sonko dara du ko daal of course parce que terroriste bi dem na génne mu place ay nit yi ko ne ñoom dañuy essayé ci essayé lañu nekk dañoo dem ba wóolatuñu seen bopp dañoo faible am ñu dara lu ñu yor dañoo empty yéen a yor lépp Sénégal du kayit moo koy doxal actuellement non population a Sénégal ci boppam contre the small group of evilness te lan moo tax ñu naan dëkk mooy the population lan moo tax ñu naan the spirit of the country mooy yenn population donc spirit esprit dëkk bi bu xasee ba ne non benn dix groupe fan la ñuy jëlee énergie fi ñuy jëlee paaw fan kayit gi nga xamante ne moom lañuy nekk di utiliser di ko manipuler kayit boobu daf leen a bañ kayit boobu nga xamante ne kayit la ak encre daf leen a rejeté moo tax bu ma gisee ngeen waxtaan ay affaire kayit diw def na di def na la yes it's okay parce que ñi ci gën a bëri ci yéen dangeen ko jàng ngeen gëm ko I don't am lu ko jàng-jàng just to know lan la evil man and what the man have planned to looloo tax but when come pour respecter kayit boobu I don't soo sama njaboot bi leen wax encore den répété focus leen ndaxte la ngeen am ak la ngeen moom loolu la soxla te mënu ko am because jox ngeen ko tuutoom lekk na ko pare bu fekkee te da ngeen ko fekk sa ci ñaari mandaam ngeen attaqué ko foofu moom moom dina jafe pour xeex ko waaye ci biir ñaari mandaam jox leen li ngeen moom tooñ na leen sàcc na leen fen na leen ba pare jaay na leen kooku amul fenn fu mu am fu des yéen ko may loolu yéen dangeen ko accepté même bu mu fokkatee sax da ngeen ko ne ok no problème lu des bariwul te lu yàgg soriwul ngeen muñ ko da ngeen a accepté the challenge of the universe at a minute maa wax loolu sama njaboot yi I am so bravely proud leen. There's no one out there who can challenge the chosen of ak Emmet but fenn bat ñun soo leen gisee ñuy continuer wax ak yéen ba léegi pour protéger leen parce que da ngeen a victorieuse ba pare te lépp li ngeen xamante ne da ngeen ko gis seen bët wa ak Emmet war leen that doesn't mean it's happening du caagin dafay am maanaam dafa yàqu pare lu waroon a li ñuy la. ate mi indi ko seen bët pour xam carrément these people have nothing going on yoob ñu dara leen topp non donc seen ñaari mandat yi ñe may yéen mi Sénégalais yi ñoom guñ ko apprécié ñi génn dem wokk peacefully ñu bëgg ci ñaari màndaa yooyu ñe leen may am na leen liñ ci bugg a def too bad for them I don't feel sorry for them because ñoom ñoo ko liggéey nee naa leen da ngeen am li ngeen xamante ne seen làmmiñ soo leen ko tuddee iris war iris kan moo génnee ñaari mandat kese ci Sénégal kan moo ko implante ku ko génnee du ñoom macc bi terroriste bi du moom moo ko implante moo ne ñaari mandat rek soo iris moom def na lu baax ci boppam moo ko génnee du yéen so ndam bu mag bi fala bam come from his mouth and his tongue see, it's over moom moo ko wax moo nothing else he cannot do nothing dara munu manam they pack them Walla wala mu in a hard way Come ni you don't want to loan in a hard way bu play soo sama njaboot bi sama focus mooy yéen fagaru leen nee naa leen du ko xaar humiliation lay bañ gàcce lay bañaat gàcce gi dafa doy ci moom mu ngi jeex mu ngi confus mi ngi traumatisé gàcce buy rëy bii di ñëw bëggu ko xaar soo day ut nan lay def ba génn du créer caisse actuellement ñoom seen bopp dañoo ragal dégâts am. catastrophe am Sénégal bëgg ñuko they not allow am ñu right am ñu permission pour créer chaos ñëwé ñuko sax dañuy essayer mais yeen ñu ngi leen won carrément ak ñom bi ñuy sëkkat yéen ba ngeen ni sëkkat fekk ñom yéwaguñu motax mané leen ni sen mama dafa juddu yaatu duma xeeb dara lu way waxu waxu bala ngay aksi ma ngi tok di la xaar nit nak du xeb situ ndam bi ngeen am bepp yëngatu bu ñu yëngatu ngeen jël leena a yëngatu ba raw tremblement de terre fo ngeen toll do len xaar gis yëngatu ngeen a ah nañu xaar dede te bëgguma entre yéen ci sama njabot ngeen ni point ku nekk ak sa xeex gis naa ajuma bu mu commencé ne moom mu ngi commencé xeex bi di xiifal dangeen a woor yi ngeen tiit woote mama neel ajuma bu mu bu mu xiifal of course ajuma day xiifal ci xeex lañu nekk nee naa leen ajuma bu mu leen jaaxal yéen dama bëgg ngeen xam ni que la ngeen liggéey ba si fii dara bum tax ngeen di nelaw ku doon nelaw huit heures de temps defal deux de temps lu des bariwul ku doon nelaw huit heures de temps def ko de temps foo leen munta toll def leen seen xel ne anytime nit nag boo amee sa ndam doo naïf doo sàggat 4 mois it sound like dafa bëri ay bës waaye trust me my kii my people lu gàtt la is 4 days victoire bi sometimes day sim ci yéen sorry but it's not it's right here parce que ñële duñ ko xaar de gàcce gi ñoom yàkkamti ñu sax they're not gonna wait for it dañu nekk di jéem a ut day way out mais way out boobu ñi jéem a playing game xool nan lañuy génnee mais ñemee ñu créer chaos they're not allowed amuñu permission am ñu autorisation Sénégal mu am chaos bëgguñu ko sax dañuy essayer waaye dama bëgg yéen ñépp ngeen gànnaayu fagaru taxaw because guerre bii ñu ñëw pour géesi ñoom dinañu gis li nga xamantene ne expecté wuñ ko won the whole Senegal gonna come out donc bugguma ngeen toog sàggan it is over ñom bu paré wuñ won ñom ba xam ni we were born ready standing and victorious ka paré wu la parce que ñoom ba xam ni fuñu jëm because continent Afrique yépp ñom ñi ngi xol ci ban la jëm parce que leen xamné because ajuma du ajuma senegal is a Juma of the world. du ak continent Afrique worldwide donc go fi dem la ñu nekk di they try to debate where to go because they can't Kanta Gambia bi they don't fit because Gambia bi is not promised for them Guinée Bissau jarul ngeen wori looloo tax ñu am problème pour yëngatu because Guinée Bissau ci boppam mbaaloo ci nen la toog mbaaloo ci nen la ni jema Adam Baro day dox xel because mistake yi Macky Sall di def Adam Baro bëgg parce que Adam Baro ci bopam fu mu nek is not promise do you understand so maha xamal leen ne do bi mom la he is on his own yen ñepp ngeen préparer taw ngeen xaar every action sometimes so do len xaar ngeen provoquer tamit dégg ngeen yéen ñii doo leen parrainage foofu ngeen moom dëkk ba pare yéen moom dëkk bi yéen ay cuus te yéen a ñu tànn soo da parrainage for what pour lan parce que yéen parrainage bi pour wàll leen carrément yéen a moom dëkk bi non ils sont nitu nit ñi xam nañ ko ñoom ñoo war a ut kayit boobu ñu xool ba xam ne nit ñi bëgg ba di diit parce que wër nañu ba sonn gis ñu fenn. Threat is only threat. It remains threat. Betrayal is remain betrayal. Terrorist is remain terrorist. so ñële mun ñu am parce que dañoo pare benn mandat lañ leen joxoon ñu fokkati deuxième atem nit na leen bàyyi leen bàyyi leen ñu fokkati seize lañu am soo lan la liggéey nothing soo lan moo leen mën a jox xalaat yéen ngeen di tiit noo there's noo tiit li ngeen liggéey ñoom mun ñu ko dab They cannot do nothing. For you, I'm sent Palato tele, I don't watch news. Man, I focus on here, TN. Di leen karma. You ñun pare nañu pour préparer send strength power and lightning ñun dañoo pare pour xeex as long as ñoom are ngi làmbaat we we telling them that we are ready so it's up to them bu ñu bëggee You can see. si suñu bëggee dem in a better way ñi dem so when you bëggee créer chaos we are ready Following it ñu alright sama njaboot ki soo kayit boobu gis ñi tëj wax is not your way shouldn't be your worried ma bëgg ngeen focus ngeen prepare encore the victory is always yours and it remain yours the universe have chosen and Senegal have spoken already long time have affaire sandi for fee, fee. no they need to go they need to leave And you are them. so it shouldn't be your worried no no as long as ñoom they know better how to walk away Then you choose boobu ñu dem de même groupe bii di bii ñëw nii sax notin de kenn du surtout jigéen yi ñu teg parce que it's good jigéen yi nga xamante ne ñoom ñi ngi dem pour def liggéey bu salte as long as ñun buñ ko xamee rek they are ready toos they are ready toos so sama njaboot gi ma bugg ngeen stay and concert comme ne wax ci fajar gi live ma def utile yéen ñëpp huile simple bi ña nga xamante ne depuis ci xex njëkk ye ñi ngi souffrir dara seen yaram yi ma bëgg ngeen ut uy souffrir ngeen commencé ko naan depuis légui day ci lepp naan leen ko depuis légui mu génné poison yi nek seen yaram day ray poison da kay génné set week ñen build strength nyan be on standby to get ready we are ready to face the end of the fight and peace will remain in senegal mbera sama njaboot Then an encore. You were born ready and winner. The victory always remain yours. Mera, my kid.